comme dañu ko topalé won rek ci seen té tabaski gi té nak ñu ñëw fi nga xamanteni moy mooy kay kaay solo ñëw fekk suñu ben natango suñu bi ñu ngi lay nuyu. wa ñu ngi lay siyaar. bu wona xam tur nak la. mo ma ngi tuddu Sogi Gueye. Sogi Gueye ndax mo ñu fàttali fi place bi nek actuellement. wa place bi mi ngi situé Thierno Kandje en face mosquée mosquée bi mosquée Tidiane. côté Kër Cheikh Mourane. Kër Cheikh tey bu ñu gisee ñu nekk ci waajtaay tabaski yi jamono ji ndax yéen seen bi wàllu li nga xamante ni moom ngeen di jaay yére yi bees yi ndax dina dox ci tabaski bi. bon waaw am nañ ci tuuti yaakaar nag ko parce que li ñuy jaay ñun jeunes yi ñoo koy ñoo koy consommé lu ci ëpp te événement yi léegi mooy waaw c' est vrai que olof bi lañ gënoon farataal mais léegi dem nañ bu benn moment yére tubaab bi nii moom lañ moom nañ jël quoi am parce même bu dul jour korité bi après le lendemain li ci top le ko mom lañuy soxla quoi motax instant yi mën nañ ne am nañ ci yaakar quoi gëna a dina gën a ak jamono ji buñu sello conteneur yi bari na tay tissu conteneur yi jaakat tissu yi yaatu nañ te chaque jour nga gis euh, tissu yu bees yo xamanteni day genn te mu ndé xol fête bi fête la bo xamanteni ni ñu si ëpp lañuy xey jënd sol manam sol seen yéré wala fa dem julli ji tey naka ngeen di mën a dundee ci événement yi est-ce que tey euh, lu avant événement bi comme ni ngeen daan dundee ak njaay mi ni mu daan tane est-ce que ci biir di ngeen ci mën a yëg seen bopp pare ak projet bi ñu mel. waaw waaw waaw contrairement nag quoi dina ci yëg suñu bopp mais à 50 pour cent mën nañ ko ne parce que boo seet fête bi feetu musulman la mm-hmm. affaire kii tradition mooy gën a dox quoi mën nañ ne mais nag benn côté quoi. li ma la wax jeunes yi ñoo koy consommé te bi dañuy fàggu pour pour comme waaw même guddi gi des fois ci guddi fête am ñu mel noonu quoi. ndax am ngeen ay bis yoo xamante ni léeg-léeg euh, ngeen mi ngeen jaay di ngeen yëg ci seen bopp bu waaw waaw waaw waaw mën nañ am na jour waaw hmm. dañu am jour yoo xam ne moom jël comme jour lu ma quoi muy lundi hmm. ak jeudi ne ni jour yooyu moy gëna a dox quoi ci la dëkk yi sekk dëkk yi fété ci ginaaw yëpp ci la ci am temps bu ñëw motax tax mais amu leen benn jafé jafé bo xamni yeen yéen koy dund tey seen liggéey bo wa tuuti tuuti rek parce que mën nañ né commerce jurbel doxul à 100 da ngay investir toog xaw tay nga dal ci suba affaire yi dëgër mais sant rek quand même kon boo doon dëggal ñi nga xam ñoo leen ñoom ngeen yaakaar ndimbal ci ñoom leen kàddu lay doon waaw waaw mën nañ ne yokk yokk gars yi fii rek pour ñu gën a mën a investir quoi. ok mais dañuy gis nga boole kook li mel ni coiffure ngay wat ana la lan moo sabab loolu tey. waaw waaw coiffure mën nañ ne dafa yàgg doon sama domaine quoi depuis que may nekk di def étude des fois dama doon wàcc su ma amee temps bu libre hmm. damay dem ci sama côté coiffeur yi coiffeur affaire yooyu. waaw bu ma demee ba ubbi place bi sama xel ci loolu la dem automatique. comme que xawon na ko maîtriser tuuti tuuti naa ko ci boleh, jamono ji lan ngay wax say client ñi nga xamante ne ñoom ngay jëflante yan kàddu ko lay doon waaw waaw ma leen di wax rek waaw ñu waajal parce que du yàgg dara nañu am arrivage bu bees am ñu ñëw bagage yi moom naaj na yomb na ñu ñëw ñu def ci xéewal waaw prix yi daal seeru fi ne ah prix yi moom dafa abordable waaw léegi comme ñi nga xamante ne ñoom lay seetaan bëgg a jot sa numéro téléphone yan numéro lañ mën jaar ngir mën la jokk waaw waaw waaw pour jokk ma mën nañ ma ci 77 353 17 41. fii daal mooy kër gi xéwal kon. waaw ah, fii mooy kër gi xéwal. ok kon yomb na xéwal leen <laughs> merci. voilà mbokk yi noonu la ngeen ko toppalee ba tey ñu ngi ci nga xamante ni moo di Njaareem des li nga xamante ni moo di centre commercial bu ñuy wax centre commercial Serigne Saliou Mbacké ñoo fekk ci suñu benn naataango sëñ bi ñu ngi lay nuyu. baal ma yokk ci kàddu gi tuuti. waaw ah, ñu ngi lay fay bu baax a baax. bëggoon a xam tur bi naka la. Gambie Gambie ñu gis ñu nekk ci waajtaay ki euh, ndax jamono ji comme yéen ñi nga xam ne yéen a jaay yére yeeg euh, dàll yeeg bees yi ana naka ngeen di dundee jamono ji ndax liggéey bi mu ngi dox ci événement bi jamono ji. sant yàlla rek liggéey événement moom daanaka deux jours ñun ne suba ñun ne suba la julli gàpp julli daanaka foofu la jamono ji yéen a commencé yëg seen bopp événement non instant bii nii moom yëgaguñ ko moom. gisagu leen dara. waaw ah, gisaguñ dara. waaw mais est ce que duñ ñàkkati client ñoo ñëw ngeen aj bagage yi seeral ko génn ngar wala non non non bagage yi kon lu am daal mën ngaa am ci bagage yi. bagage yi kon baax kon lan ngay wax askan jamono ji yan bagage yi nga fi am. bagage yi bari na. bi am. nga fàttali mu tur bi ak it place bi nekk. ku bëgg a def ba ñëw fii nii naka lay mën a. moom mi ngi nekk ancien garage bi rek ancien garage. continué. côté mairie bi boo ñëwee ba ci mairie bi rek station bi noonu mooy ancien garage boo taxaw ne place su Gambien yi waaw Gambien nu laaj la euh, dañuy gis ne njaareem bariwul yenn événement yu ci mel ni ay boîte de nuit yu ni mel euh, bariwu fi euh, nekku fi amu fi sax mën nañ koo wax. te teewul euh, daanaka njaay yu mel nii ci yu mel noonu lay gën a mën a doxee ak euh, dëkk yi nga xam ne am na plage euh, yow nga investir fi doon jeune lan moo la encouragé ba nga ñëw taxaw mën a investir lu toll nii njaarim quoi. ah maanaam gëm yàlla rek adduna moom foo man di nekk nii gëm suñu borom gëm sa bopp bu dabbut dina mos a ñëw. nu gis ne yére góor lañ ëpp ci lu nu gis ci place bi. Euh, lan moo tax boolewoo ci jigéen ñi aussi te gis nañ ne jigéen ñi ñoo ëpp li ñuy jënd. Ah, man moom vraiment moom yére góor moom laa gën a xam quoi. Hmm. yére yu góor laa ah, fan nga ko commencé. Hmm? lii fan nga ko tàmbalee jaay. njaareem gi nga ko tàmbalee jaay am bitim réew. non non ah, Tëngéej.

dara mooy loolu war comme daf rek boo demee Dakar. nga mm-hmm. xool li nga xamante ne nii moom la gaa yi wàcce ak lu méngoog jamono. nga ànd ceeg ñoom rek dara loolu rek la. Mm-hmm. kon baax na kon jamono ji lan ngay sàkk ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo yor bagage yi di ko dugal ci réew mi yan jafe-jafe ngeen dund entre yéen ak ñoom. ah gars yi moom vraiment moom amuñu problème ay borom baax lañu. Hmm. vraiment amuñu benn problème des fois da nga ci gis ñoo xamante ne nii tey par exemple boo yorut dañ lay jox nga dem ba ñëwaat wala nga avance boo ñëwee moo te duñ la teg benn pression. vraiment ku bëggoon a jot Gambie tey ci yan numéro la ko mën a jotee. mën nga jël 76 bi 800 hmm. 800. 873 873 06 38 38 waaw 76 876 06 36 38 bal ma waxaat normal waaw 873 06 38 orange orange bi moom doxaloo moom. <laughs> incha allah yëpp dana ñëw ci kanam. looy wax clients mbokki Jurbel yi ah, ñu jàppalante rek. waaw xam ne moom affaire yi moom fépp la méttee moom ñu jàppalante rek. li waay yor daal soo ñëwee da fekk sa prix. waaw waaw xam nga loolu nag da ciy joué waale bu baax a baax a baax ndax parce que ñun tey bagage yi ñaan ñaanuñu yàlla jënd ko mu fiy yàgg tey biñ ci gisee yenn prix yooyu incha allah ok aywa tawfeex ndax ma bëggoon xam tur bi naka la. Pape Sidi Pape Sidi tey ñoo fekk rek fii ci bitig bi euh, gis marchandise yi bagage yi ñu demee jaay mi Pape Sidi dañoo jëm événement bu mag bu am solo di événement ab jullit ñu koy wax tabaski waaye bi seloo nag euh, tabaski bi euh, li ëpp ci li jar maanaam yëre olof yi lay doon. xamante ni ñu si bëri mooy li ñu sol bu julli jeeg ndax événement julli lañu wax daanaka xamante ni yéen a jaay yére yu tubaab bi anan njaay meeg jënd bi jamono waa wàccaay tabaski waaw mais xam nga njaay meeg jënd moom wàccaay moom waaw du du lu ñu lu ñuy bett nag euh, def nañ ko defati ko ndax xam naa ne xale yi jigéen ñi suñ ñëwloo desinère am na ñetti jin yu bees wala ñeenti jin yu bees surtout bi wala bëri yu bees ropp surtout bi pour en cas su ñu ko solee vingt heures vingt et une heures seen tabaski jeex na dugg si tubaab bi même lan demee tabaski dañuy rey suñu xar ba pare bàyyi ko fa ñëw si kër ñëw si place bi ñu dóor xam boobu la boobu la événement bi nag xale yi essayé loo yin si bagage bi da koy jënd ndax boobu événement bi nag sur lan demee la lan demee tabaski ndax bu dul tabaski yéen ngeen gis seen bopp ci ko matériel waaw na xamal tax euh, fii xale yu Jurbel saa yi euh, man dama naan dañoo bëgg lu baax tey ñoom ñoo ngi dund tandaas bi yére lu muy bees soo ko indee fii jënd ko soo soo du indi camion yére yu du jeex barki Mouhamad da nga koy jënd xamal tax tendance nañu topp moo tax xale jubal neex ma dañu topp lu état bi di laaj ñu koy def. en tant que moo la dugal ci liggéey bi. en tant que jeune. waaw dama ko jàng. ba jàngee fee marché bu météo. marché bu naan Tafa Ndiaye. yàgg nga ci liggéey bi ah. lan ngay conseil ndaw ñi instant bii nii. Euh, lépp. soo liggéeyee dee nga xam liggéey rek a euh, yàlla may la soxla laaj nga defal ko sant yàlla kon ah, gis ne euh, góor di jaay njaayum jigéen dana am ay jafe-jafe léeg-léeg yaa nga xam ne danga ko ci rencontré. muy ci wàllu diggante jigéen ak góor maanaam relation bi eh, ak sa clientèle bi yan jafe-jafe ngay faral di rencontrer ci mbir ci liggéey bi. waaw mais jafe-jafe yi moom mënut a ñàkk ndax dangay jaay nit ki sama yóbbu këram ñëw sol ba ñëwaat ni li ma jaay jotuma ndax xam nga ni soo ko téye xet day dal xam ne kii sol na ko ba pare da ngay jël mu xam ne kuy jaay mu jël fëgg leen ba mu jekk teg ne xam ne ku ñëw soo ko joxee ku ko bëgg ku si xoolante téye na wala wala sol na ko ba pare dañu a sol. Euh, léegi par rapport ak jigéen ñi nga xam ne peut-être ñi ngi jëm ci fet bi parce que danoo toll ci période fête ñu gis ne tabaski li ci ëpp ay yére olof la ñuy jënd comme ni nga ko waxee nii lendemain euh, tabaski presque mën nañ ne semaine bi yëpp fête lay doon euh, foofu ban yéen gars yi gars yi nga xam ne événement tabaski paas na yéen boobu mooy seen événement waaw mooy suñu événement nag boobu moom dañuy jaay bu ci suñu bopp ay tabaski ay 31 décembre ay 24 décembre ay 15 août ay Saint-Valentin moom ñun ñoo ko moom ndax xale yi moom dañuy wër damay tëdd nelaw sax sama sonn mu jugal dam boobu moom waaw dañ ci gis suñu bopp bu baax a baax a baax. waaw ñu gis ne aussi jeunes yu ci bari ñu ngi jàpp ne ku tukkiwul doo tekki. Euh, nga bëreeg euh, maanaam sa sa sa sa sa njàmbaarte tax nga am courage toog fii Jurbel ak Jurbel nu naan Jurbel dafa dee Jurbel dafa dee Jurbel lan moo koy rey doomu Jurbel yi nga xam ne ñoo fi nangu te investir la am lan la. waaw mais courant sa dëkk moom dafa dee daa fi xamoo dëkk ba rek ndax ku toog yàlla fépp la ne yàlla bu nekk fii moo nekk Europe yàlla doo tëdd nelaw naan Jurbel mën nga dem loolu nàmp moom ngay wax tey doo nekk fii bu yom nga ne Europe laay jëm dem Europe toog yàlla xam nga fàttali na fii nga xëy defee ba pare xam nga soo demee Europe comme ndox lay doon si yow mais mënoo xëy un jour viendra sa grand frère nga sonal ko damay tukki dem ba mu yóbbu la nga tukki deux mois trois mois nga jël air ba nga jëloon loolu amul sens comme laa jàngat toog fii ne xaar yàlla buñ seetloo fii gis nañ fii buñ seetlu maanaam yëre jigéen moo toog moom mbokk góor yàlla yi wala bokkuñ ci bikit bi waaw amee xam ma yëre jigéen lu may wax rek comme tey moment bi sama client baal sama rakk la tey góor gaawul yëre góor gaawul yëre jigéen a gën a gaaw moo gën a gaaw jigéen ñett xeeti yëre la ñuy faral di ko gën a yittewoo jamono waaw mais jamono ji nii robe trois quarts cross top combinaison jean nga fàttali ñu place bi mooy ban place ak numéro téléphone yi. waaw bi mooy waaw place bi moom bi mooy place Sen Santhie Shop. daanaka moom tur baa ngi daw soo xoolee Facebook su ma dugalee arrivage sa gëli Sen Santhie la xam bi sax pour ñu wax ko waaw Sen Santhie rek la ñuy wax. Sen Santhie Shop tur bi laa tudd numéro téléphone bi 77 297 90 soo mu jotul si benn numéro bi jot ma 308 91. ok baax na